yàlla na ko borom bi tabaraka wa wàcce seen kaw te wàccee ko seen kaw njaboot fa tabarakallahu ngeen di ànd ak seen mbokk Abdoulaye njaay fii ci Mouslih TV émission bi ñu am ak yéen ay bis yu jot ci waxtu wii bi ñuy tuddee li ci réew mi fa tabarakallahu li ci réew mi dañuy wax ne li ci réew mi rek lañuy ñuy waxtaanee ndax kat gis nañu jamono ju ne ci waxtu wu ne ci saa su ne am na lu ñu mën a waxtaane moo tax ñu ñëw ak yéen di waxtaan ak yéen fa tabaarakallaahu lu jëm ci wàllu réew mi waaye nag noo ngi ñaan yàlla mi nga xamante ne fa tabaarakallaahu moo jël mbas mi wàccee ko ci àddina noo ngi koy ñaan yàlla nanu ko yàlla teggil ndax it kenn mënu koo dindi ku dul moom kenn amul kàttan ku dul borom bi tabaraka wa mooy tege la muy tege waaye nag fa tabaarakallaahu bu ñu bëggee mu teggil ñu ko rek dañuy delluwaat ci li nga xamante ne moom mooy tuub jéggal sunuy baakaar di ñaan yàlla noonu yàlla jéggal te teggil ñu mas yi nga xam ne fa tabaarakallaahu lëmbe na sax àddina du mën a Sénégal waaye àddina la lëmbe mbokk yi ku ne xam ne ni dañu dund ci réew moo xamante ne ni lu ñëw rek ñu ne am nañ ci xam-xam lu mën a ñëw rekk ñëpp ne am na xam-xam lu góor ga waxoon ne bu làmb amee ñëpp nekk ay mbër bu football xewee ñëpp doon ay joueur wala bokk ay entraîneur waaye bu weeru koor ñëwee ñëpp nekk ab oustaz ah, fa tabaarakallaahu sëñ Abdou sëñ Abdoul Ahad Mbacké yàlla na yàlla yërëm ko daan na wax ne ab réew bu yàqoo ñaaro ko yàq waa waajay wax la muy wax xamu ci dara te kenn mënu te kenn mënu koo noppiloo ka xam di wax lam xamoon jeex mu continuer wax rek mbokk yi ko am xel tey xelu xam na ni lii mooy li nekk ci sunu réew da ngay gis koo xamante ni ni mën na nekk ci média dara dara taxul ñi teg ko fa lu dul ni làmminam gure ak ngéwéle mais du xam-xam nga du kàddu gu am solo ga muy génne lii nag lañuy dund ci sunu biir réew ba ci feebar bii nga xamante ni ni yàlla teg nañu ko mbokk yi wa muy dóoru dugg ci réew mi ñépp jugandoo ku ci nekk indi sa sa xam-xamu bopp ku nekk wax nga dëkk sàngam la jugeeg waa dëkk bii ñoo ko créé ak lii ak lii waaye nag lu ci mën a am rek yàlla xam fu mu jóge beneen bi ci topp ñu gis senegal ba fi mbas mu duggee rek médecins yépp jóg mbokk yi yeneen dabi sallallahu alayhi wa na bépp balaa bàkkaar la waaye li ko fay jëlee du lenn lu dul tuub ñu waru tuub delluwaat ci borom bi tabaaraka wa taala xam ne tey lii nga xamante ni ñoo ngi koy dund ci suñu réew kenn teguñu ko ku dul yàlla waaye nag ci sababu sunuy ñawteef ku ci nekk war a dugg ci ko man a kanam daal koy jiiñ boppam ne lii tey yàlla wàcce sunu kaw kenn taxul ku dul man ku ci nekk boo ko jiiñee sa bopp rek yàlla jëlee ko fi te muy doon lu dëggu nag waaye nag ci jamono jooju nga gisee sunu musiciens yépp génn nee na yooyaay dañuy defar ay singal wala ay ay clip yoo xamante ni ni dañ koo tuddee xeex corona yow baakaar nee nañ balaa baakaar a koy wàcce yow kay li nga def muy tuub waaye nee yow nee nga baakaar nga koy faje wala baakaar baakaar nga koy xeexee tontu li moom mooy déedéet te beneen gi ci topp mooy nañu ragal yàlla nañu ragal yàlla bu baax a baax te ñu dem tuub suñuy baakaar moo gën ñu nekk fii naan dañuy misik xoolal boo ñëwee ci ay rapport ñoo xamante ni ni seen euh, génération bi ñu toll duñu wax lenn lu dul di classe di di saagantey ndey rek. fu kaddu gën a ñaawee nga jël ko yow dind ko sa moroom nga ne yaa jox askan bi leçon yow kooku war nga mën a taxa ci ko askan bi ne yaa yor seen kaddu war nga mën a taxa ci ci ci biir askan bi naan yow yaay ki nga xam ne yaay xeex korona te seen kàddu yi dara rafetu ci amuñu leen lu def lu dañu di kalaasante di saagante ndey di xastante loolu rek ngay gis ci li nga xamante ni moom lañuy ñuy dund waaye nag jamono gi ñu toll yaakaar naa ne ñëpp noppi nañu ñëpp noppi nañu. ndax loo amul pexe moom da ngay mujj toog rek mais ba yëf yi na bërët jugandoo am ñoo xamante ni ay mag lañ ba léegi ñi war a tuub jéggul liñ jot a weesu waaye déedéet jamono gi ñuy gën di dund di dem ñoom ci la ñuy gën di dugg ci li nga xam ne moom musique boobu ñuy dund yow rab dafay mën a jëlee corona bi rab bu fi mënoon jëlee corona bi États-Unis mën a jëlee sonal ndax ñi leen dàq rab ñoo ngi fa ñu leen dàq rab ñu ne États-Unis ku tudd rab sa xel dem ci États-Unis tey ñoom la corona bi gën a sonal corona gi tëb na rek rapport yëpp mbalax maan songandoo wax ji moo nekkul woon loolu déedéet li mu doon kay mooy ngeen déglu borom xam-xam yi nga xam ne ne fa tabaarakallaahu ñoom ya ñoom la fi yàlla teg ñuy jàngale diine lislaam ci jàngin gu leer ñi ñu wax ñi fan lañu war a teg sunu tànk ngir tuub dellu ci ginnaaw xam ne lii kenn teguñu ko ndax xul lan yusibanaa illaa ma kataballaahu lana ak musiba ab jàngoor ab loraa ngi du jóge ci kenn ku dul borom bi tabaraka wa kon nag li ñu waroon def mooy fexe tuub jéggal sunu baakaar waaye du lu ku génn rek di wax ndax du ñu nekk ci réew moo xamante ni wax moom wax moom def dañ daf dafay am bayre moom ku nekk kay wax ku ne ku nekk kay wax boo duggee ci sit internet yi ñuy jug di wax nga gis ñoo xam ne neneen yaay dañoo mën a faj ñoom ñooy faj jàngoro bi maanaam ñoom daal lu waay lu xew ci réew mi rek ñu ñëpp ñi maase ci am ci xam-xam te waru woon demee noonu nag mbir mu nekk dañ ko war a bàyyi ñi nga xam ne seen xel moo ci màcc ñi di leen déglu ñu ñuy orienté dañuy teg ci yoon waaye bu ñëpp waxee ñëpp pëccuxoo ku ci nekk nga bëgg a jóg am ci xam-xam doo xam fan ngay féetee ndax kii waxee lee kay wax lee ndax yenn saa yi da dem yow sax boo dootoo xam fooy teg sa tànk dangay dem boo dootoo xam fooy teg sa tànk ndax kii day wax lii kay wax lee Oustaz Sahim Diallo wax lee yow léegi fan kay kan kan kan kan ngay jox dëgg kan ab réew nag bu dee ñëpp dañuy jóg di ñaan fukki bu fukki nit di gas fukki nit di suul pënd bay wuri rek waaye kàmb du ma sa am kàmb du ma am kon nag nañu ragal yàlla te ñu tuub delluwaat ci borom bi tabaraka wa taala jamono ji ñu toll ku ne xam na ni nekk baar yeeg saanu daasin yeeg yu ci bari bari tëj nañ ko moo tax la góor ga waxoon ne la yàlla doon digle nit ñi di ko bañ la yàlla doon tere ñi ñu bañ koo ba tey corona dafa ñëw fa tabaarakallaahu daal li li ñu yàlla doon digal ñu di ko bañ mu digal ñu ko ñu def ko far fos li ñu yàlla doon tere ñi di ko bañ mu ñëw tere ñu ko far fos te amuñu ci benn lu dul lan dañoo ragal dee lu dul dañoo ragal dee kon mbokk yi nañu ragal yàlla ñu delluwaat tuub te ñu xam ne ni musiciens yii man maa ko wax musiciens yii man gisuma ci proyukaay gisuma ci royukaay kon nag ngeen jéem a bàyyi loolu xel bu baax rapport yi nekk fii nekk ñu fi loolu di saaga ndey yi ku dégg seen musique yi xam ne dañoo dàq saaga dañuy wax naan sax rab bu njëkk ba sax boo ko daan déglu sax amaana lu mu gàtt gàtt ñu am euh, euh, dañoo dëgg woon jàngal la mais jamono bi ñu toll saagante ndey saaga saaga saaga saaga bu dul jeex yow nga toog ci kanamu askan ngeen ne yow yaa may jox leçon déedéet kon nag ñu jëm cee bàyyi xel bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla jéggal yàlla na yàlla jéggal yàlla na yàlla jéggal suñuy bàkkaar yàlla na yàlla jéggal suñu njunteeg suñu rëcc-rëcc ak suñu ñawtee fi jëf yow yàlla noo ngi nii kat say jaam lañ tooñañ la guddi tooñañ la bëccëg waaye ñoo ngi waat ni kenn du jéggale kudul yow lu ñuy bon a koy bon ak lu ñuy mën a ak lu ñuy yées a koy yées ak lu ñuy mën a tooñ yow yàlla wallahi gëm na ni kenn du jéggale kudul yow xam na ni sa yërmande rek mooy li xaj ci ñun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 lu baax alalu jullit te fu mu ko fekk da ko war a jël kon na ñëpp abonné fa tabaarakallaahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.